maa ngi tudd Souleymane Diallo jiite syndicat SELS euh, démb nag am na ñeenti syndicat muy SELS SELS authentique UDEN ak Snelas FC ñoo xam ne dañoo daje woon ak waa COSYDEP ñu jël engagement ajandi li ñuy wax mooy grève yi ñeenti syndicat yooyu tamit dem ci Haut Conseil du dialogue social jël décision ajandi euh, euh, grève yi nga xam ne moo nekk ci biir njàng bi ak njàngale bi bi ñu waxee loolu ba pare ñun ñeenti syndicat yooyu mooy SELS SELS authentique Uden ak SNELAS dañoo jël décision ñëw fii ci Tivaouane ndaxte ñëwoon nañ fi am li ñu xalif bi ñaanoon mënuñ ko woon jox mais bi ñu demee xaymawaat dañoo jël décision suspendre mot d'ordre bi ñun ñeenti syndicat yooyu ñu ñëw fii si xalif général des Tidianes a jotale ko suñu décision boobu rafet lu taxawaayam ba pare tamit ñaan ko euh, mu dox ay tànk jàmm diggante ñun ak gouvernement bi si wàllu application des accords mais nag à l'arrivée ñun CELS rek ñoom ñoo ñëw Uden Sinela CNTS euh, FC ak CELS euh, authentique ñi jëloon engagement suspendre comme ñun jëloon engagement ñëw Tivaouane comme ñun ñëwuñu lu tax dese na maa waaye nag ñun dañ ne suñu kàddu dañ koy sàmm lu mu metti métti ñoo ko waxoon dañ koy sàmm ndaxte suñu kuréel yi suñu CA d'abord bu njëkk moo prononcé woon si wàllu indemnité de bi jox ñu minima te minima boobu atteindre nañ ko ñu ñëw bureau national démb suñu bureau national également jox ñu mandat boobu moo tax te woote Tivaouane xali bi ne mi ñuy xaar ñu ne suñu kàddu boobu lum ñu manti jaral dinañ ko sàmm moo waral ñun sels ñu sàmm suñu kàddu ñëw gis xalif bi xalif bi nag rafet na loolu bu baax a baax ñaanal ñu ñaanal Sénégal ñaanal njàng mi ak njàngale mi ñaanal jàngalekat yi te nee na bu si yàlla àndee engagement yi nga xam ne gouvernement bi jël na ko te ñu wañ ko wéyal si plénière bi war a am si fan yi dina fexe ba gouvernement bi respecter engagement yooyu nga xam ne dina ko jël benn poñ bu am solo mooy si wàllu indemnité de logement am na montant bu gouvernement bi annoncé mais nee na dina ko ak président la république wax ko délai nga xam ne moom la ñu waxoon octobre pour ñu rapprocher ko pour ni ma gën mu gën a gaawee jàngalekat yi mën a jot si li nga xam ne moom la président de la république effectivement décidé. ñun nag am nañu yaakaar loolu lu am solo la dañ ko si gërëm sant ko sant kilifa diine yëpp tamit ndaxte ñoom ñëpp benn lañu ah li ma wax sànq nag mooy li gën a am solo ñëw nañu ti waawoon kontaan nañ si baax a baax ñi ñu waroon àndal ñëwuñu lu tax xamuñu waaye pour ñun gor da ngay sàmm sa kàddu lu la si fekk. nga jël nga xam ne yàlla loolu la séddale waaye am nañu yaakaar comme que jàngalekat yi ñoo ñu tax a jóg ñëw si këru diine bii nga xam ne xalif général de Tidiane moo fi nekk ñaanal ñu taxaw ay tànk jàppale ñu si président de la république xanaa kay di ko gërëm di ko sant donc di ñaan yàlla yàlla may ñu jàmm. monsieur Souleymane Diallo secrétaire général national du CELS. bien le CELS le CELS authentique l'UDEN et le SNELAS FC avaient annoncé hier en réunion avec la COSIDEP et en réunion avec le Haut Conseil du dialogue social de suspendre le mot d'ordre de grève. Et ces quatre organisations syndicales avaient aussi pris l'engagement de venir aujourd'hui à Tivaouane pour rendre une visite de courtoisie au Khalife général et donner une suite favorable à l'appel qu'il avait lancé allant dans le sens de suspendre le mot d'ordre de grève. Mais finalement, comme vous le constatez, seul le celle donc, est à Tivaouane, seul le CELS a rencontré le Khalife général nous avons pris l'engagement d'assumer la décision que nous avions prise avec les trois autres syndicats que sont l'UDEN, le SNELAS FC et le SNELAS Authentique. Maintenant, pourquoi ces trois syndicats finalement ne sont pas venus Je ne saurais le dire, mais nous, nous quand même, nous avons tenu à respecter notre engagement et à venir dire solennellement au Khalif général de Tidjane suite à une réunion de nos instances nationales, d'abord l'ACA qui nous avait donné un mandat clair sur l'indemnité de logement et le bureau exécutif national qui s'est réuni hier de suspendre le mot d'ordre de grève. Suspension qui a été très favorablement accueillie par le Khalif général, qui pour le Sénégal, qui a prié pour l'école sénégalaise, qui a prié pour les syndicats d'enseignants. après cette félicité de notre action citoyenne, a pris l'engagement d'intercéder auprès de M. le Président de la République, d'abord pour garantir l'application des accords avec une plénière que le gouvernement va convoquer dans les tout prochains jours afin de finaliser les mesures prises par le Premier mais également de demander au, à M. le Président de la République sur la question de l'indemnité de logement donc de rapprocher les délais de paiement donc, euh, euh, des montants qui ont été annoncés par le président de la République. Donc euh, nous sommes satisfaits de sa réponse. Nous avons pris une décision à quatre. Le CELS est venu seul. Nous assumons notre décision parce que nous disons que quand on s'engage, on doit respecter sa parole. Et quel que soit le prix à payer, payer ce prix-là au nom du respect de l'engagement, au nom du respect de la parole donnée, au nom également du respect des décisions issues de nos instances syndicales.